كل ساعاتي الذي جاء به عليه من كل ساعاتي بما لا يرضي على منفرد

mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn koy surtout ak sa sant di leen xamal ne ñu ngi fii tey Touba ñaari tali ci daayira Tassoudou Chikhar bu Touba ñaari tali fii ci Ndakaaru di fàttali ko bis boobu nga xam ne mooy bisu sant Serigne Touba te ñu jëlee woon ci ndigal li ci Serigne Cheikh Diaw Mansour woote bis bi di ci sant Serigne Touba def ko wàccaayu Muharram te yàlla dogal mu yemoog bisu dimanche bii tey. ñu war ko waajal ngir fas yéene jëm ca bis bu mag ba bu màgg ba di mu muharram comme nañ ko baaxoo daan defee rek mu mel ne cant gi biñ ko tàmbaleeg léegi tey mooy 14 édition fukki at ak ñeent yaakaar naa ci ren ndax ñu ngi ko tàmbale woon 2009 bañ ko tàmbale li ñuy sëñ bi waxoon mooy bis bi dama ko woote ngir ñu taxawal ko fii ci Touba ñaari tali di fi sant Serigne Touba waaye di fi fat di fi waajale màggal muharram dajale taalibe yi ñu nosu ci genn buum ba nga xam ne dañuy yëkkateendoo di dóorandoo bés bi it nit ñi sant Serigne Touba mooy jàng alxuraan fi mu toll ñu ngi fii ci mbaar mi tas nañ kaamil yi di ko wàcce noonu lañ fa yéenee continuer huit heures la ñu commencé kaamil yi ak xaside yi ñooy ànd ci kanam tuuti. ñi nga xam ne ñoo yëkkati rajas benn njàngum benn benn dinañ ñëw toll ci lim bu takku ñu xam ne ku ñu xam ci ku ci mel ne sëñ Modou Fall Maraxib ak sëriñ Yande dinañ ñëw waxtaankat yi it mel ne sëñ Mor Diaw mi ngi fi waaye sëriñ Abdoulaye mbakke mi ngi fi moom itam danañ fi jël ay kaddu waaye sëriñ Ahmadou Diaw Mansour dina wax ci kaddu sëriñ bi su ko defee sëñ Cheikh Diop Taïf mi ngi si yoon bi kon noonu lañ fa yéenee mu mel ne sëñ Cheikh Diop Taïf egsi na su ko defee noonu lay wéyee ba 17 heures gannaaw takkusaan ñu def cérémonie bi maanaam kuréel euh, wakkaana ak xam dañ fi jàng ñoom itam ak yeneen kuréel yi nga xam ay soppe nekk fii ci gox bi di Touba ñaar tali su paree kuréel fédération bu bàyyi sëñ Diaw Mansour ñoo koy tëj ci diggante 4 heures ba 5 heures waaye bu ñu ko tëjee nag ci la cérémonie bi commencé cérémonie bi nag bu ñu ci commencé ci la ñuy yeewi mbooloo mi bu ko defee kenn ko nag mën a delluwaat ci yitte yi waaye loolu yëpp rek ñu fàttali ne bernde yi moom day mat faw waajal nañ yi ba ndékki nañ ba pare ñu ngi ci añ yi incha allah it nee nañ bu cérémonie bi jeexee balaa kenn jóg dañuy reer ba pare bu ko defee ñu doog yëkkati jotaay bi kon Serigne bay nii lañ fa fas yéene waajale bis bi ngir waajale ko màggal muharram waaye delloo njukkal Serigne Touba jàng alxuraan ak xasida yéene yool bi Serigne Touba xaalim rasul ngir waajale ko màggal muharram kon daal xam naa la ñuy jox kàddu gi Serigne Sang Diop rek nu mu wéyal ci ni nga xam ne noonu la ko dong yi commencé di ñaan yàlla ñu eggale ko ci jàmm ak salaam te daje jeeg tawféex Serigne Touba ma Rasuul. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf sëñ Mbacke ci kàddu yi am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko euh, wax ko ci bis bi nga xam ne moom la ñu nekk muy cant gi nga xam ne moom lañuy def fii dakaar ñaari tëli te njabootug Cheikh Mansour Diaw njabootug Baye Serigne Diaw njabootug Serigne Cheikh Diaw Mansour nekk fi di ko taxawal te ban ko dalee taxaw taxawal yàgg na lool. waye bis bu ñew rek gatchal bi jall gatchal bi nga xamé ci mo jall lool nak seen pas-pas ak seenu pestef ak seenu dogu moko ko moko ko ko rek ko wone nak xamné ne ba nekké Touba kenn xamut xamanté won nan waaye xamuñu nak da dana dajé fi jugé Touba kenn ku ne di wut loy yaxantu pour jël ko yobbu sax njabot yalla suñu doon def ñu boole leen ci jënd kër go xamné ci leen dëkk kër gi ñoom ñëpp kër bay si lan kenn leen ñu ñëw fa ba tek fi ab daayira boobu nag di dox di dox di dox ba mu yàgg ñu yëg ne war noo sant Serigne Touba dox di ko sant sant sant Serigne Touba bin ginnaaw bin ci amelee seen ndigal kilifa seen ndigalu wasila mooy Serigne Cheikh Diaw Mansour ànd ak ñoom ca bis ba yëkkati alalam def ca bis boobu moo barkeel ba tey jii saa yu ñëwee bis buñ ko 2009 waaw moo yëkkati ab gàttam joxe ko ca nag bis boobee nag mooy mooy ca lañ ko tàmbaloon mooy law di law di law ba léegi am na diggante wax defuñu ko fi kenn koo xam ne coronavirus bi fi jaaroon bi ñu ñëwaatee sëñ bi fedd liwaat ko amaat ñoom cofeel xam ne lan doon def lu baax la ndax ñu ngi koy yokk fii ñu dëkk mu ne leen nag ngeen ko defaat tey ji te commencé ko ci bëccëg gi ñu def ko tey ci bëccëg waaye bëccëg gi dafa mel ne ak guddi ndax wax dëgg yàlla am liñ fi bi ñëwee tey ñun ñi nga xam ñoo jógee Touba euh, toll ci ab oto bi ci guddi kaar lan jëlee kër sëñ ba dajaloo ci njiitu fédération bi nga xam ne Serigne Mbacke Seye moo ko jiite di fukki daayira yi ak ñaar yëpp ak kuréel fédération bu international sëriñ maam góor jaw jiite leen ñoom ñëpp bi ñu amee seen ndigal ñu dajaloo ñun ñëpp nag daal di daal di jël kaar kër sëñ ba daar fii teew ñëw fi sëñ Mbàkke jaw moo jiite euh, ndaje mi ak sëriñ Axma jaw Mansour mi nga xam ne dafee fanaan si kon nag loolu wax dëgg yàlla bu soñoon nag kon ay biis la ñuy taxawal kër sëñ bi ñun ñëpp ñu yabu ci ñëw waaye kenn ginnaaw bis bi bëccëg la ñu daal di nañ fi teewal nit noonu rek waaye euh, boo ëllëgatee nag dana gën a yaatu dana gën a yokk waaye ñoom daal tufuñu ko suñ Mbàkke ndax bis bi bis bu rëy la ci ñoom lépp luy bis di li yalool ci guddi wala lu bis di aajowoo ci bis bi ñoom def nañ ko bàyyiwun dara lépp lu war a am ci ay xéewal muy ndékki muy ay yi añ yeeg ba ci ay ay xeeti bernde yoo xam ne kenn xamu fu mu bàyyi ko wax dëgg yàllam ñëw na fi ji góor ñi kenn ku ne di indi say addi ak soxna yi fi nekk wax dëgg yàllam taxawaay bi rafet na lool kon li taxoon ñu koy def la yàlla nañ ci daje ngërëmal Serigne Touba te yàlla suñu borom fayal ñu suñu bu baax a baax a baax ak njabootu bàyyi Serigne Diaw Mansour gépp ba lépp loo xam ne yéen nañ koo liggéeyal Serigne bi suñu borom defal leen ci lu kawe seen jopp suñ bàyyi loolu rek lañ fi doon indi di ko wax waaye wax dëgg yàlla màggal gi taw feex na lool di la sant yow mi nga xam ne yaa mu waay bu tiifi sab taxawaay ci kër sëriñ bi nee naa suñ bay képp ku ko soxla ba kër bay suñ nga soxla ko boo da nga ñàkk gisul leen soxlawul dara lu yittey kër sëriñ bi soxlawul lenn loolu kër sëriñ bi ñoŋ jëm ca kanam ba nga xam si lépp luy information ak fépp foo kër gi yemoon mu mën mu mën faa jëlee ay tolluwaayam mën ko yëkkati mu jëm ca kaw kon nag ku mat a ñaanal nga suñ borom yàggal la fi te wéral la ba lépp loo xam ne si yéen a ko liggéey sëriñ suñu borom defal la ca kawe sa njot waaye di sant si ñax xam ne nag dafa teew ci teewaayu sëriñ bi ba pare teewaay ci waa fédération bi ñaari teewaay la ak sëñ Maam Mor Mor Jaw moom sëñ Seex Jaw mi nga xam ne mi ngi si suñ biir ak sëñ kii Mbàkke moom mi nga xam ne si ci biir moom it teewaay bi rafet na lool kon daal ñi ngi sant wàcc suñu kàddu te wax ne programme bi moom day doog a commencé rek bu ngoonee ñu doog a def cérémonie officielle bi ñu reeree pare doog a da nga delluwaat ci ñu teewal nañ fi dayira yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñu jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi topp site site bii nga xam ne Mawahibou TV na ci ñëpp abonné képp kuy wuyoo jaw war ngaa abonné ci Mawahibou TV ndax suñu baykat matériel Cheikh Mansour Diaw la matériel kër Baye Serigne Diaw Mansour la ñu par kenn par kenn ñu abonné ci ba ñëpp xam ne site bi waa Kër Baye Serigne Diaw ko moom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ku ci abonné dara du la ëmp ci Kër Baye Serigne Diaw Mansour ku ci abonné dara du la ëmp Kër Cheikh Mansour kon site baa ngi noonu ñun ñëpp ngeen abonné wasalaamaaleykum wa rahmatulahi. جوف الفرا للورى